alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwaan wa tamkin amma baad gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokk yépp te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu aq di leen baal aq di ñaan sunu boroom mu boole nu baal di ko tàllal sunuy loxo it di ko ñaanaat mu gën fee bàyyi sunu kilifa gu tedd gi lu yàgg lool bàyyee ko ak sagoom ak wéram ba mu àggale semb yi mu sembal cheikhul xadim ko diine ji ñu ànd ko ak moom noo ngi jaale it sunu bopp di jaale réew mépp di jaale sëriñ bi mbokk yu yooyu nga xam ne yàlla moomoon na leen ci xew-xew bu rëy boobu nga xam ne jàlloon na fi am ay bakkan yu ca am ñu ca gaañu ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu yërëm ña ca dem te jéggal leen ña ca rëcc it mu sàmm leen ba delloo leen ci seen sago sàmmal leen seen njaboot te may leen jàmm muy xew-xew boo xam ne nag sunu borom lim na mu ci xew-xew yooyu di di nu fàttali di bëgg nuy waaru ci xew-xew yi ñuy jàll yi ñuy romb di jàll faatabiru yaa ulil absar ab julit lépp lu xew rek moom da cay jàngee dara loo xam ne mën na koo jariñ ci ak dundam ci àdduna ak ci alaxira te suñu borom tabaraka wa taala gis nañ ci alquran lu bari mu dinu wax ay aaya yoo xam ne daf nuy tax a fàttaliku tax ñoo wàññiku tax ñoo jaaraat ci kaw yoon wi muy wax ne lépp lu leen jot rek ci ay nattu aki i balaa yéen a ko teg seen bopp ci seeni jëf la jógee ci seeni moy yu ngeen ma moy ci laa joggi ba indi balaa yooyu ak musiba yooyu wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kathir te la waxaat ne zahara alfasaadu fi lbarri walbaxri bi ma kasabat aydi nnaas li yudiqahum baad alladi amilu laallahum yarjiun maanaam yàqute ak yàqute ak ay feebar ak ay balaak ay mbasak ay accident ay yëpp dana tasaaroo ci suuf si waaye la ko waral mooy li nit ñi li mooy mooy gi ñi nit ñi mooy yàlla di teggi aw yoonam moo koy waral ci li gën a bari suñu borom na nee na li tax ma di ko def léeg-léeg nag mooy dama leen a bëgg mosal leen ci li ngeen def yéen a ko def ma mosal leen ci tuuti ngir ngeen dellu si ci man tuubal ma jéggalu ma te jaaraat ci yoon wa takat sunu borom tabaraka wa taala lu mbir metti metti rek am na lu ko gën a metti te bu nu jàppee woon li ñuy def rek daanaka du bàyyi kenn ci kaw suuf si walaw yuaxitu llahu naasa bi zulmi naasa bima kasabu alayha min daaba walakin yuaxiruhum ila ajalin musamma nee na nee na su ma leen jàppee woon li ngeen di def du ma fi bàyyi kenn kenn du fi des suma leen jàppee woon li ngeen di def rek du ma fi bàyyi kenn kon yooyu yëpp li muy tegtale mooy sunu borom yàgg nañoo artu yàgg nañoo wattandikuloo lam ñuy wattul ndikaloo ak lam ñuy artu nag mooy bàyyi mooy ko te di ko topp te wattandiku mooy ko ndax saa buñ ko defee rek moo am lu mu loo xam ne dañuy delluwaat ci moom kon aaya yooyu day leeral na rek masaay bi yëpp ak balaa yëpp mi ngi jugee ci nun te loolu moo mos di am naka jekk ba sunu borom bindee àdduna ba léegi wala bu bindee mbindeef ba léegi saa bu yee ñëwee rek mu wone boppam saa bu mooy ñëwee rek mu wone boppam sunu maam aadama ci la njëkkee la ko génn àjjana moom maam awa mooy mooy sunu borom tabaraka wa taala wa aadamu rabbahu fa xawa mooy itam moo génne iblis ci nit yàlla ya malakut malakutu samawaat péyib yàlla ba nga xam ne ca la iblis nekkoon ànd faak ña fa ne la ko fa génne du dara lu may mooy yàlla wàcc ay ndigalam gis nañu yonent yu bari ak seenu nit laleen alagon yàlla ñi mu labal leen ñi mu wëlbati suuf ci seen kaw ñi mu def def leen lu ne lu ne rek xew na fi te la ko waral du dara lu may dañoo teggi yoon wa mooy sunu borom tabaraka wa taala ca lam leen digal kon loolu mooy doxiinu sunu borom tabaraka wa taala ci mbindeef yi mu di ñu ko nettali ci alquran nag lu bari te nettali nga jubluwu ci xam rek wala jubluwu ci yéem waaye ñu jëlee ci nag ay bind faqsusil qasasa laallahum yatafakkaruun faatabiru ya ulil absar lépp sunu borom mi ngi ci eh, wax rek ñuy waaroo ci xew-xew yi xew di ci jëlee ay bind yu ñu mën a jëriñoo la ñu wuute rek ak ñu njëkk ñooñee mooy fonk gu yàlla yëpp fonk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax musiba yam daan wàcce ci ñoom buñ ko moyee yu toll noonu du ko wàcce tundun du ñu labal du wulbat ci suuf si du ñu lakk duñu yooyu yëpp ay musiba la yoo xam ne yàlla wàcce na ko ci ay nit yu mel ne noonu waaye nun yàlla du wàcc ñun nun doo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo moom la rus moom la dara jaal ba eh, jagleel ko loolu waaye nag yàlla moom deseen na yeneen soldaar yoo xam ne mën nañu gën a néew yooyu waaye yu tar lañ walillahi junudu samawati wal ard yàlla moom moom ay soldaaram yoo xam ne lu ko neex mu def loo leen accident yeeg feebar yeeg yëpp ay soldaar yàlla lañ yoo xam ne moom moo leen la mu bëgg a faj ci biir nit ñi kon li ñuy gis ci jamono yii ci ay musiba ak i balaa yuy wàcc ci nun génnut sunna soosu nga xam ne moom la yàlla euh, saxoo ak nit ñi saa bu ñu ci balaa rek duggaat ci beneen balaa bu ñu génnee ci beneen wala ñu gën bu ko gën a metti feebar yeeg mbas yeeg ak catastrophe yeeg yëpp dara duñu ci musal nag lu may delluwaat delluwaat ci sunu borom tabaraka wa taala tuubal ko jéglu ko te bàyyi nag lan doon def ba loolu dal nu jéem ko bayi te buñ ko layee ne nun kat am na nit ñu baax ñu ne ci nun yoo xam ne yàlla dana leen rus ba du wàccee nangam te loolu ya yonent bi sallallahu moo ñu ko moo ñu ci artu woon toog na benn bis Zeynab Zeynab ci akar yonent bi la bokk laaj ko ne ko ndax yàlla danañu alak te nit ñu baax ñi nekk ci suñu biir mu ne ko waaw waaw nit ñu baax ñu du te mu alak leen de saa bu mbon tasaaroo rek ma wàcce sama mbugal mbon saa bu tasaaroo tuutu ma rus kenn mbon ma mën nay am mënut a ñàkk am day am jamono yu nekk day am waaye tasaaroo ga nag su amee nee na damay wàcc sama mbugal ta du ma ca rus kenn rawatina nag bu dee mbon goo xam ne kenn terewu ko wala lu yiw loo xam ne kenn diglewu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dolli ca nag wattandiku loonu lu baree baree bari ci ci mooy yàlla waaye mu tuddal nu juróomi mooy yàlla yoo xam ne moom daf na yii moom saa bu ngeen ko defee rek yàlla wàcc ay nattoom wàcc ay musibam yaa masharal muhajirin xamsun idabtulitum bihinna wa audu billahi an tudrikuhunna lam tazhari alfaxishatu fi qawmin xata yuclinuu biha illa fasha fihim altaaun wal awjaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam na saa boo xamee ne dem ngeen ci jamono ba fésal lu bon wax ju bon wala jëf ju bon ngeen fésal ko waxul ngeen def ko de waaye ngeen fésal ko saa bu ngeen demee ba def ko rek yàlla dina wàcce ay mbas mbas la wax yàlla dina wàcce ay mbas wàcce ay coono wàcce ay feebar yoo xam ne ña leen jiitu woon musuñoo xam loolu gis nga suñ jamono ji jamono ju nekk lu ñëw ñu ne nangam de musu fee xew xew-xew bii xew dañ ci ñi ñi ñi ñiy dugg ay oto musuñoo gis lu tol noonu gaañu ci oto kon loolu lu mos a ñëw la suñuy maam xamu ko woon suñuy baay xamu ko woon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 الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kon gis nañ ne wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw sunu borom da ko yàgg bañ waaye nag lam ca gën a bañ nag mooy ñu dem ba siiwal ko di ko tasaare laa yuxibu llahu aljahra bisuui min alqawli illa man zulim kon nee sunu borom bëggul ko siiwal lu ñaaw wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw bëggul ko ko siiwal waaye yemut ca loola daf ca digge am mu tar ci àdduna ak ci alaxira ci àdduna mooy lii ñuy gis ci suñ jamono mbugal li àdduna yi ci la bokk muy xaar rek alaxira te loolu nee na inna alladina yuhibuuna yuhibuuna an tachia alfaxishatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunya wal axira ñi nga xam ne dañoo bëgg a tasaare bon di diffuser lu bon ci àdduna bi ci jullit yi nee na yàlla nee na maa ngi leen di dencal mbugal mu metti ci àdduna ak alaxira mbugal mi nag mu àdduna mi nag tàmbali nañ koo gis wala ñu ngi ciy gis lu bari kon ab julit dafa war a wattu aw làmmiñam wattu ab gisam wattu ab déggam noonu ko sëriñ Tuubaa waxee ci jawaru nafiis wa xifsuna al lisaana min fahshaai wa min qabixi l qawli wal miraa nee na war nañoo wattan wattu sunu làmmiñ ci jëpp wax ju ñaaw jëpp wax ju ñaaw ak jëpp wax ju ju araam war nañ ko war nañ caa watt suñu làmmiñ daane wax ju ñaaw nag mooy lan xaqiqatul qawli al qabixi kullama takunu minhu zaayahin fa alama wax ju ñaaw nee na mooy wax jëpp wax joo xam ne boo ko waxee yow mi ko wax danga rus ñi koy dégg danañ rus ndax ay nit rek lañ jëpp wax joo xam ne boo ko déggee yow mi koy wax boo ko waxee da nga rus wala war ngaa rus wala ñi koy dégg war nañu rus te loolu buñ seetee jamono daa mel ni daa daa xew nit ñi dañuy dañuy dañuy wax lu bon te duñ ci am kersa dañuy déglu lu bon te duñ ci am kersa mu nekk aada ci ñoom mu nekk aada ci ñoom nga xam ne tegatuñ ko muy dara ndax tasaaroo gim tasaaroo ta euh, euh, nekk lu rëy lool mu ne it wa xifsuhu wa xifsuhu min alxaraami basara laa yanzuran maa la yajus an yanzura nee na jullit bi war naa wattu ab jisam ci xool lépp lu araam bu mu xool dara loo xam ne daganul mu xool ko mu xool dara loo xam ne daganul mu xool ko te loolu ku ku gis jamono ni mu toll li ñuy diffuser ci ay ojo wala ñu di si diffuser ay vidéo ña koy def xam nañ ne la ñuy def lu bon la waaye la ca gën a bon nag mooy ña koy xoolaan bari lool ña koy déglu bari lool loolu moom mooy la gën a bon te saa bu ne ngi gis ci jamono saa bu wax ju ñaaw génnee wala jëf ju ñaaw génn boo ko xoolee ñañ naan seetaan nañ ko wala déglu nañ ko dañuy bari lool par rapport ak wax yu baax ya ak jëf yu baax ya dañuy bari lool te loolu lu rëy rëy la ndax bakaar bi dafay rëy yow mi génne wax ju bon sa moroom jël ko diffusé ko moroomam jël ko diffusé ko yow mi ko génne da am sa bakkaar da am bakkaaru képp koo xam ne divisé nga ko da nga am bakkaaru képp koo xam ne divisé nga ko ci wax wala ci jëf bu ko defee bakkaar ba rëy lool ta wax dafa nekk lu rëy rëy rëy rëy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit dana wax benn lam benn wax ci làmmiñam jàppee ko lu ñàkk solo lool waaye mën na caa am gërëmal yàlla lu rëy rëy rëy ak daraja yu rëy waaye nit dana wax ci làmmiñam wax bu tuuti jàppee lu tuuti waaye dana ca am merub yàlla mu ko dugal ajjana yowmal mu ko mu ko dugal jahannama yowmal qiyaam yàlla na ci yàlla musal kon jullit yëpp war ñoo wattandiku seen làmmiñ war nañoo wattandiku seen i wax seen i seen seen i seen i nopp war nañoo wattandiku seen gis ci dégg wala wax loo xam ne rafetul walla ñaaw na rawatina nag di ko tasaare li ma waxoon ci gannaaw léegi yàlla moom lu bon bëggu ko benn yoon ci wax ak i jëf waaye lam gën a bañ nag mooy ñu di ko tasaare nga xam ne doomu adama dafa lompañ faaw muy def yu mel noonu waaye tasaare ga nag mooy dayob dayob bon ak da dëjër la ci sa diggante yàlla soo déggee lu bon wala nga gis ku ko wax ga dégg ko da ngay def la yalla waxoon jullit yi ne leen bu ngeen déggee lu bon lawlaa istamitumu zanna al muminuuna wal muminaati bi anfusihim xayra wa qaalu haada ifkun mubin suñ déggee loo xam ne lu ñaaw la ci seen mbokkum jullit dañaan loolu de du dëgg loolu de du dëgg kenn ku ne rafet njort ci sa bokkum julit daal ne loolee ma dégg day tamit lu ñaaw du dëgg duma ko gëm même bu dee dëgg sax da ko koy wedd yow walaw laa istamitumhu qultum maa yakun lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtan azim lu ñaaw lii de bi ngeen ko déggee da ngeen a war a wax ne ñun day loolu du jugee ci sunu làmmiñ duñ ko wax muk duñ ko wax mukk ndax ay caaxaan la ay nar la yoo xam ne dara amu ci waaw ndax suturaal ab julit donte na lañ lañ wax ne moo ko def moo ko def it dañ laa digal nga suturaal ko yow man satara musliman satarahullah ku suturaal ab jullit rek yàlla dana la suturaal waaye ku xotti ormay jullit ci waxal ko lu ñaaw wala nga jëfal ko lu ñaaw sunu borom dana la nattu ñu waxal la lu ñaaw wala ñu jëfal la lu ñaaw at dina yàgg-yàgg te dana ma sa am kon lii ay seetlu la yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi juróom la wax waaye benn rek lañ ci jël benn rek lañ ci jël boo xam ne tolloo nag jamono ci tasaare lu ñaaw ci wax wala tasaare lu ñaaw ci jëf gis nañ li ciy juddoo saa bu dikkee nag ñuy tuumaal ku ne kon ne ñu ne moo def nangam sufur baa def nangam oto ba mel nangam nangam ba mel nangam waaye yooyu yëpp ay asbaab la yoo xam ne yàllaa ciy jaar ba wàcc ay musibaam a buñ ko mooyee ba noppi dara kenn mënu ko tee am kon dara duñ ci musal lu may delluwaat ci sunu borom tabaraka wa taala tuubal ko jéggalu ko te nag ma ngay tàmbulee ci bàyyi la nga doon def ci lu ñaaw foofu la tuub di tàmbulee la nga doon def da koy bàyyi ba noppi nag door a defee ca kon loolu ay mbir la yoo xam ne il faut ñu di ko xam xam ne sunu borom tabaraka wa taala yërmande jëm am ci noonu moo tax léeg-léeg sax mu wàcce yu mel noonu ngeen nu dellu ci moom lu yudiqahum baada alladi amilu laallahum yarjiun kon lii am saa bu amee rek dana war a tuub tuub dellu ci sunu borom bàyyi la nga xam ne moo nu teg loolee sa sabab yi nga xam ne moo ko moom moo ko moo ko sabab ci saayir yëpp ñu bañ koo tuumal kenn bañ ko tuumal lenn ne nun noo ko def fa bi maa kasabat aydikum waaw nun noo ko defal suñu bopp suñu defee loolu rek kenn ku ne jàppee loolu jàppee ko sa bopp yàlla mën naa am wàcce yërmandeem ci nun wàcce eh, ak eh, lu baax ci nun ba nga xam ne ñun ñëpp danañ nekk ci jàmm di dund ci jàmm kon lépp lu nu daal rek nan ko teg sunu bopp nan ko tuumaal sunu bopp te bañ ko tuumaal kenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت المحصي على عباده جميع أعمالهم قلت أو كثرت ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو شهادة عبد ظهرت طويته وأشرقت بالإيمان سريرته وتنورت ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير موجود شهد به خير أمة linnaasi uxrijat sallallahu alayhi wa sallama wa ala aalihi wa asxaabihi alladiina kaburat makaarimuhum wa kathurat amma ba'du fa yaa ayyuha nnaas udkuru nicmata llaahi alaykum hal min xaaliqin gayrullahi yarzuqukum min alsamaai wal ard laa ilaha illaa huwa fa anni tuufakuun wastaxfiru llaha wa lahu aniibu wa iyaahu faraaqibu وبخياركم توسلوا وعظموا حرمات الله وعن الظلم ارجعوا ومن المظالم تحللوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الظلم فإنه يعيب العامة كما يشين الخاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عباد الله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الحمد لله راحم من تضرع بين يديه منيبا وخاضعا وجابر صدع من قصده منكسرا متواضعا لا إله إلا هو لا مانع لما أعطى ولا مهطي لما أصبح له مانع أحمده لا أني أحصي الثناء عليه ولكني أصل ما كنت له بترك حمده قاطعا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مقبول الشفاعة ومجاب الدعوة أما بعد فيا أيها الناس استنزلوا ما عند الله بالندم والاستغفار وقفوا بين يديه وقوف الذل والانكسار فإن من وقف بباب, بباب الكريم فتح له أبوابه ومن استغفره قضى هوائجه ويسر أسبابه وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن داءكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار جعلني الله وإياكم ممن كان لحديث نبيه الكريم واعيا وفيما ينفعه يوم يقوم الأشهاد مجدا وساعيا laa yarfacu shakwaahu illaa liman yakshifu balwaa walaa yuclinu ducaahu illaa liman yujiibu lmudtarra idaa dacaahu dalikum allahu rabbukum fa tabaaraka allahu rabbul caalamiin هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا وطهر قلوبنا ويسر مطلوبنا وأصلح أحوالنا وزكى أعمالنا وسدد أقوالنا وحقق في عفوه آمالنا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم الله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 بعضهم الله الله أكبر سمع الله هبنا الله akbar السلام عليكم السلام عليكم